fii nga xam ne Ousmane Sonko foofu la joxoñ Bassirou Diomaye Faye jiite yoon wi foofoo yoon wu baax bi ma wax leen dara nag ma wax dara mu leer de ndam li fa la jëm de ma ne ku bëgg a jubilé le 24 parce que deuxième tour du am dóor sëlëm mbër mbër boo ko mënee doo yam ci duma ko loolu dafa yomb de li tubaab di wax il faut gagner avec la manière mooy bugguñu deuxième tour premier tour balaa tàkkusaan nañu wàññi carte yi ne coalition Bassirou Diomaye Faye am na 70 pour cent ñu dem ñibbi Samba Camara wax na leen ko léegi mbir mi nag du yomb bu ngeen foogee ne day yomb da ngeen nax seen bopp du yomb de du yomb de waaye nag duñ ko xeex tamit ci njëkk amul dara lu ñuy maye kooku doon naan ci njëkk nag ci njëkk nag bu mu doon ci njëkk nañ ko fuqar ci bi nag mooy lan mooy taxaw 15 jours yàggul mettiwul kenn ku nekk jàppal ne ambassadeur nga ci combat bi nga xam ne Ousmane ko ubbi na ko Bassirou Diomaye Faye jiite ko dinañ leen la seen candidat bi xale la dinañ leen ko wax parce que ku xamul foo jëm yat woo for rek di nga ko jéem a dóoraate loolu ngeen di dégg parce que amatuñu lenn lu ñu mën a teg ci seen xel yi lu dul est-ce que seen candidat bi àttan na ko mën na ko parce que nee nañ 42 ans la am. Thomas Sankara bi muy jéete Burkina Faso ñaata at la amoon du 34 ans Emmanuel Macron bi muy jiite France ñaata at la amoon 35 ans xaw ma 39 ans président Abdou Diouf bi muy jiite Sénégal ñaata at la amoon laaj leen ko doyen yi 45 ans la amoon Traoré bu Burkina Faso ñaata at la am te boo ko déggee xam ne dégg nga nit gis nga yooyu bu ko kenn dugal seen xel. président de la république lenn dong la am vision am gis-gis te sama gars yi nag am nañ ko de boo déggee Ousmane Sonko mu wax di nga xam ne kii du cuune Basiiru nag miinuñu ko naam walla yéen miinu leen ko mais li Ousmane wax moo doy na sëkk usmaan ngeen gëm usmaan lañu gëm nee na Basiiru baax na nee na Basiiru jub na kon jàpp leen ne Basiiru baax na Basiiru jub na Basiiru am na xam-xam Basiiru mën na ko xam nga senegaal jiite ko lan moo ci jiitu ci am solo mooy yéene mooy am valeur mooy am ay principe te loolu gis nañ ko ci gaañ yi dama ni na seen xel dal bu leen kenn ne amul vécu école bi gën a mag ci senegaal ku fa génne waxuma la Sénégal waaye mën ngaa jiite àdduna bi te Basiiru foofu la génnee te nag doxalin bu bees bi nga xam ne moom mooy am Sénégal Sénégal bii di ñëw dafay nekk une gestion collégiale mooy kenn ku nekk sa xam-xam parce que nag booy yii xale yii fi toog tey koo ci yëlëb mën na laa génneel programme bu yorum réew waxatuma laa nag ku jàngi ba yi ay diplôme kon bu leen nangu ku yàq seen xel yi li gars yi di wax change mind bu leen kenn cenc may gëm leen li ngeen gëm dem leen ci président bi ngeen am incha allah en deux mille en le vingt quatre mars dina nekk président bi gën ci ci réew mi. dina nekk président bu ko mën a jëlee ci zéro yóbbu ko ci vingt dina nekk président boo xam ne li ngeen bëgg muy seen yéene te Ousmane ko xam ko dina ko doxal ba nga xam ne di ngeen toog ba sant yàlla. sant yàlla nag. dañ koo bëgg dañ koo soxla te ñun waa Tivaouane nañu góorgóorlu ba buñ ci des ginnaaw nañu góorgóorlu ba buñ ci des ginnaaw fi may daanele mooy sant ñëpp